saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Boy Niang ma yëkkati ñetti dëggam jébbal ko Balla Gaye 2 Boy Niang du wannal baat kenn ku wax ak moom mu tontu la Balla Gaye 2 ma fi génnoon barki démoo njaay ne bëréewuma ak Boy Niang Boy Niang xëy na ba tontu ko loo xam ci li Balla Gaye 2 wax mu ne ce que Balla Gaye 2 dii ne m'intéresse la mu wax fa mu tàmbaleeg fa mu daanele amul lenn lu ma ci intéressé waxu Balla Gaye 2 lijjanti wu ma ko konté wu moom Boy Niang 2 mu yëkkati ñetti dëggam teg ca taabal ja ba ca njëkk mooy Balla naan ko mën ngaa bëre def nga fi lii def nga fi laa bu yeboo na ko ko bëggee du ko amee ci càppaacol yi Balla Gaye de yéen a gis mën a bëree mais man lijjanti wu ma ko gisuma ko la muy def ak lam du def soxalu ma konté wu ma ko ñaareel ba mooy qu'il me mu bañ laa ci yemale danaa am combat man Boy Niang 2 lamb ñàkkuma xorom ñàkkuma supporter kon ñi combat di te man Boy Niang bokk ma ci Balla bu ma jëlee ma bëre bu ma jëlut ma bëre ñetteel ba mooy kaasu fonde bi muy sóoraale bu ñëwee dama koy diw bu dee sama wax ji moo koy yëngal dana dëkk ci vivre li mu wax sunuy mag ak sunuy nijaay ci làmb xaaju xaajaat ba duñ ko ko wax bu yeboon a te xam ne fii du fi amee lu sedd stafu Luc Nicolaï ak jiixi jaaxa yi ñu nekke woon ci combat Modou Lo Ama Baldé Luc ba dana amam du am bëggatuma kenn ku ko fi soulevéti képp ku nekk ci staff bi tey xaar samay kàddu joxe naa ndigal mayetuma kenn muy wax ci combat bi naan dana amam du am lay am lay ñàkk am ci man la dépendre te ay fan yu néew danaa def déclaration Sénégal gépp am lu leer ci bile combat journal ba xam le ne ñaari mbir yi moom faawu benn am ci Luc Nicolaï dana jiital a am le 5 bi ñu dëgmal diggante Siteu ak Papa jàkkaarloo bu njëkk ba jàpp nañ ko ajuma bi ñu dëgmal Siteu ak Papa seen jàkkaarloo bu njëkk Pa Abdou joxe na bés ba ajuma ci hôtel teeru ba la ñu fas gisante seen gisante bu njëkk ña gisante ca stadium Iba Mar Diop ci drapeau ba diggante rëg-rëg ak tafaatin foofee mayante jàmm rëg-rëg ci tànki sonal VIP yi la nekk te balaa moo bàyyi faaw am ko ko ci jël gannaaw ba mu dooree ca guy gi sonal ko

war nga am combat fa ñuy jeexale mooy ca lutte sans frappe ak gala woon ca mbam le 10 ba le 12 janvier 2020 foofee association ngel Sigacoor ñoo fa woote woon Ababacar Sarr bu ñoo jor moo ko jël ci kanam Mohamed Ndiaye bu Fandine bu dee ca yengeel ñoom le 9 tàmbali ba le janvier foofee Cheikh Ndiaye bu Sob moo ko jël ci kanamu Dibor Diouf jërë ngeen jëf mbokk yi ko li gën a fës ceetu yéenekaay bi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah